non ci jot bàyyil ma yii dama bëgg nga wax ñu laakal bi bi wax ñu attaque programme am bi ñu ne successful ko aɓe golɓe ɓe timmari dijos paris paneja ɓe konoto uh-huh. yalon attaque pour mastalati uh-huh. attaque pour molidi meno gon defa wolega reet uh-huh. wala nen nata jang bari fanan paris commune perspective is commune tomorrow sunday analysis bari ñimɓe de atale tak manke artist nden gambia ɓe naate danko miide hawsisol naata gam talens tv nak yalal tol toña toña toña toña al tol lom arola yusu ndur gam talens tv mbese woring ba ousmane bota fa america bidjan fsam ite may boss lady al tol ɓe men na fon amul al tol dega dega al tol lom ñinna al tol lom majilo kosti way yo xamul ma jaaxa waxama si ali kalaj bi li nakala programme bi. ana gars yi dañ confident oo waat. non non non non non xam nga li fa nekk mooy ne dama feel ne organisation bi dafa xaala des bés bi buñ ko buñ ko time buñ amoon pour déclaration bi la daal mu ngi mel ni dañ ros mbir mi waa dégg yàlla ndóo bi xam nga rek over the years na waaye dama fiil na tamit mënoon naa gën a xam nga bëri nii waaye loolu tamit benn tey xam nga rek leetut ñu ne ñu ne dalu mbaay maa si ñoom Pa Malick bi ak yooyu loolu moo ko yaaxal. waaw man man daal loolu xam nga aduna na rafet waaw man dama fil ne ñu ne comme diw nekku di liggéey ay ak diw lu ma fil tamit mooy ne promotion bi boobu si côté attaque la ak ñu management bu mu am ak nu mu munti doon dama fil ne dafa nii doon enough time pour mu promote show bi ba pare mu gën a prepare waaye yëpp mystique daal yëpp waaw xam nga de. dañ ko liggéey xëy na mais bi waaw xam nga rek bu xewoon ak yooyu noonu waaw ma ne yooyu noonu yëpp ah dafa am ko fi teg <laughs> mbar dafa am ko fi teg ah ah yéen a yéen a nekk ah, aar bi leena moom xam naa aar bi ku fi nekk especially aari Gambia bi dengan tega bedegir sangu beton yi